ma del siwaat di wax ci mbiri réew mi di soññ gaañi nañu wàññi riir mi sunu Sénégal gi bu ko kenn yàq mbaa di nu teg fitna yoreel nu àq fii Sénégal teraanga lan nu xame woon tey nag danoo mel ni ku teggi woowa yoon ñi ya ngi xastante ñi lay saagante bañante lool ba yegg ci rayante yàkkamti nañ nit juum ba nit ñi mbamb ko bu ko deful sax gaay maase jiiñ ko ko daanaka weer wi yëpp sonkook aji saar ñooy coow ci réew mi fu ne coow laa nga fa jaar sonko ci lay doore waroon naa bañ a dem ci salle de ba lu mel nii di fa am ngir nit bu dee mbooloo la gëm jiital la waroo di dem fenn fu ñàkk ful la te ñépp xam nañ ni salon massage yi la ëpp lan fay def ëlëm na gaa yi nekkul jigéen rek moo ko man góor ñi ba tey am na ñu def massage liggéey ñu leen di fay koo ci ni ñëwal nga maase ma mu ñëw daggi itee massage forcé loo ko jox mu lew xam nga ni réew mii ku fi am baat faw noon jëm laa fexel yàqal la mbaa mu yóbbu yoon ki moom salon massage bi dégg naa waxam moom it ku juum la na ko ñépp maase xam ngir dégg naa ko mu ni ay kilifa rek ñoo ñëw di maaselu te kenn du ko yëg moo wax itam ni aji nekkul nit ku jub ak juba dem du tey bu yàgg la ko dab te nee na léeg-léeg daana jël téléphone bu ko gisee gaaw teg ko bëggul ku ko xam nee na ba tey daana ñu tëdd aji jug di xam ne dara du ca jàkk ku mel ni kii ay kilifa fu ñuy dem waruñ ko faa yaatal baay wax di fam moo tax mana ki moom salon bi juum na lool njuumte lu rëy loo xam ni kat yomb la suul rawatina ku toll ni sonkook dara jaam mu di ko maaseel li jaaxal bépp jaam te aji saar mi wax ni dañ koo violé yéem na ma lool ngir dégg naa ni du xale nan la la nit dëkkee violé waxuloo yuuxuloo kenn mosulaa gis nga xuloo te mësu fa ñëw ba nga dog lu ngànt xëy benn bis rek bind sap plainte daan ni dama violé lii daal teey na xel waaye ñu bàyyi yoon ba xam lan lay doxal te dégg naa Sonko makki sàll lii lépp moom la ngir bëggul ma jàll. terrorisme d'état moo fi nekk te Macky Sall moo ko jiite moom Macky Sall ñu teg ko ci bopp réew amul lu muy tal moom du di def ay complot ci naka lay def ba fexeel. sama adversaire loolu gàcce xam naa ne cooli bari na wax ji itam bari na lool ci mbir mi réew mépp gëlëm ñu bari it ci waa état bi seen doxiin ñaaw na te ñaawlu naa ko doonul luñ fi miin sa mbokku jullit nekk ci tolof tolof nga koy dugal doonul lu jullit war a def xaaj baa ngi topp te la yeeg rajo yi ngir fexe dugal Sonko te lii du yëfi gor. Adji Sarr va parler man elle m'a un mois avant ma dama koy la dem porte ji plainte Ousmane Sonko avant ce jour du deux. ñu bare daal ci ñoom dañoo farmankoo dooleel aji ngir rek mu tëjlu Sonko Sonko bu ne yéen a taxaw di ko fexeel ngeen ciy doxee nii xel dina ci teey lool alxaaji Macky sàll nag ma déglu dégloo ma xel Sonko bu leen ko tëjlu ngir réew mu am démocratie faaw mu am opposition de moo koy taawu. da ngay bàyyi rek ku war a gis ngeen Karim. fii la ñu xëy yàqal ko. tëj ko solal ko ay nitam xëy génn ko. mënu la gis baayam. te baayam moom kase la am ci doom bu góor te mënuñoo tase ñu xëy ni yoot xalifa tëj ko xañ ko élection yi ba mu wees ñu génn ko moo tax aji bi mu plante Sonko ñu bari dee ni moo ko état ko lonkoo ngir fi mu ne mooy wuju état wi gën a siiw ñu bari jox ko baat ba fu mu woote ñu teew buñ jàngatee ña jiitu woon la leen dal ak mbir mi nim demee sunum xel du ci dal ngi lay dagaanaat nga bàyyi lii mu sedd réew mi naataat bu ko defoon sax boo bëggul ñu tëj ko kenn du ko tëj yàllaa la may lii sant ko ni nga koy defee mooy nga yërëm ay jaamam ngir yow la jiital jox la tut ci nguuram sa parti ñetti at la am buur yàlla fuqati nguur ga woon ci Ablaay jox la ñii nii di wax xëy jiite réew mi yor ko la ñuy xëccoo fu nañu dem ngir am ko am na ci ñooñ ay yoon yoon wut nañu ko te benn yoon yow nga ko wut buur jox la ko te ñii nga dee ba nga jot ci siis ba kenn deful ab noonu koo fi gis muy waxtu saw doxalin moo ko doyul muy ñaxtu bu ma sañoon it ñoom Karim ñoom Guy Mari ñu génne leen ñu dem ci seeni kër tëri ndax ku ne am na sañ-sañu wax na xaram te duñ ko tëj loolu ci réew yëpp la am yéen ñi di mars ba ñu yóbbu seen leader ba leen di taal ay oto ak sànnante xeer oto yi ngeen di taal du otoy makki li ngeen di yàq it ci yéen lay manki makki yëgal ni réew mi ñëpp a mànkoo di la tiinu ngir